njaañ bi nag euh, dafa am lu lu xaw a xóot lu ci nekk parce que njaañ bi dañ ci am ndigal ñun dañu di euh, ay taalibe sëñ Bàmba di roy Cheikh Ibrahima Fall kon bu ñu njañoo du lu ñu àbbi euh, rawatina nag ba ñu ci amee ndigalu suñu sang suñu sëriñ suñu kilifa Cheikh Mbacke Saliou cheikh euh, euh, ki ñu tuddee cheikh Mbacke Saliou cheikh Mbacke Saliou moom mooy euh, taawu sëriñ Saliou Mbacke moom mooy xalifaam tey moo ñu ci joxoon ndigal ba tey jii ñu nekk ak njañ li ah njañ li nag damay gis souvent boo toogee ci ak yenn barab yi dañu naan waaw mais saa yow naka nga mun a toogee yow doo watu ma ne waaw ñeneen ñi xanaa ñoom seen nel yi ñuy def. wala ñeneen yi seen seen euh, watees si ñuy watu ñoom xanaa loolu dafa gën njañ ndeysaan maa ngi ciy waxtaan ak euh, sëñ Moussa ma ne ko man kat dañ maa mosoon a euh, watuloo waaye gëm naa ne nit ñi ñu ngi koy ruumandaat ndax dañoo bëgg ma watu pour mën a ànd ak niti jamono mu ne moom moo ne day bu fekkoon njañ lu jóge Amérique la duñ la watuloo moo ne day bu doon njañ lu jóge France la duñ la watuloo sëñ Moussa Fall ndeysaan ma ne ko ah sëñ bi nag gën nga maa ndaxte suñu njañ lii day Euh, du ñu sàcc du fen du ñu tox du naan waaw fas yéene euh, fësal jëmmi maam Cheikh Ibra rek waaw moo ñu ko taxoon def xam naa sax taaruñu taar bu bu ni toll euh, amuñu wax dëgg yàlla séen ba sëñ bi amoon waaye maanaam mu roy bi rek ñun dafay dafay suñu cër te sedd suñu xol moo tax nag ba ñu ko tàmbalee ba am ci ndigal ndigal nag dañuy joxoon ne bu mu tilim bu mu bu bu bu nu ko sàggate nañu ko dañu fexe ba ku ñu gis ñeeñu ah te kon nag man damay dox yenn saa sax ñu wokk ma ci mbedd mi ne ma waa sëñ bi ah yow sëñ njañ yi dafa taaru lool man sant naa suñu borom <laughs> wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax a baax a baax sant nañ ci bu baax a baax te yaakaar nag ah ñun dañuy politique te ci politique bi nag ñun ca la ñuy liggéeyal sëñ Touba ca la ñuy liggéeyal maam Cheikh que ba dugg ci politique dañu ne euh, yàlla nañ suñu borom euh, xéewale ndombo tànk mu ñu liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh te jàppale suñu ñoñ yépp waaw ñun loolu lañ ci wut te rax ci dolli itam njañ li wax dëgg yàlla liggéey du ci euh, fa ngay fa ngay xam-xam ba ngay liggéeyee wala xarañ nga ngay liggéeyee jógewul ci kaw bopp bi ci biir bopp bi la ne am déet loo tax ñu ne doonut dara nit ñi rek xam nga nag nasaraan yi dañoo tàmmoon di watu maanaam euh, watu ñett euh, li fi amagum maanaam da ngay nelu nel fu mu jóge dëkki arab ya la jóge mbaa nga def lu ñuy wax euh, euh, maanaam xàll fii euh, tëral ci kanam dàq ca gannaaw loolu itam ci américains yi la jóge maanaam xeetu melokaan yi nga fay gis yëpp yu toog foo mun di dox nag muy bii nga yor ak ñeneen dana ko jéggaani njañ képp képp képp la ñu moom ñun ah ñun lu tax nag kon ñuy rusa toog ak nit ñi njañu ndaxte moo ne de njañ buur yi fi newoon balaa ñuy dugg ci lislaam ñoom ñëpp njañ moo nekkoon seen seen seen seen seen euh, seen euh, coiffure ndaxte njañ siñ de noblesse la woon am na foo xam boo fa tollul doo njañ munoo njañ parce que maanaam yow sax say say dëkkaale sax ñoo la dul may foo njañoo mais da ngay njañu ñu xam ne kilifa ñëw na ñu xam ne gor ki ñëw na ñu xam ne garmi teew na noonu lañ ko doon tiitar la woon buur yépp nag ñi def histoire mun nañ la ko confirmer bu ñuy dem ba dugg ci lislaam nag dañ leen di wattuloo ndax dañ naan euh, xëy na euh, karaw gi na meloon du mën a méngóog ak cet gi ñuy santaane ci lislaam moo ne de man ndigal bi ma ci am sëñ bi dafa ne ma na sell rek waaw ndax sëñ bi xam ne sell ak set bokkul nay sell rek bu ko defee nit ñi bu ñu la gisee danañ la ñee te ku la ñee nag dana bëgg def li ngay def mbaa mu bëgg a jaar ci say tànk comme ñun nag ay jàngalekat lañu ndax wax dëgg yàlla yàlla am na bunt yu ñu ubbil ci wàll woowu dañuy war di nag ñun def loo xamante ni nit ñi war nañ koy roy moo tax ñuy sàkku def lu baax duñ ay ay nit lañ nag mënuñoo def lépp nag ci lu baax waaye nag dañuy jéem dañuy jéem te ñu ngi roy ñu baax ñi loolu daal lañ ci